lolou nañ nañ ko fàttaliku bu baax xamni nguru aduna yi ak jeyate biñ day jeyeg di la jox ay ñaari lox ak dila sukkal ak ramal wallahi dina jeex responsabilité bi mo fi dess ëlëk ci kanamu borom yiñ fi bàkkoo diko wax yépp yàlla joxul kenn lenn ci liñ fi wax ay wax la ñuy waxalante ak diko wax ak di ku ne diko waxal sa bop mais yàlla lim ñu wax pare na ci yàlla lim ñu wax leer na bu fekkee bëgg nañu noppal suñu bop